jërëjëf Cheikh Anta Diop yëglekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf tey la tey suba la nettali bi dëkk bu yëngulu yéenekaay yu bari di ragal yëral xët mu njëkk la li mu bind mooy ndakaaru talaatay danse waaye yeewi askan wi nee nañu dañuy gontu tey jii ca terrain ak ba ca Parcelles Assainies amal fa seenub giga meeting avec ou sans autorisation maanaam gisuñu ku ko tee mën a meeting boole ci ñoo ngi tuumal majorité bi ne dañoo recruter ay nervi ngir ñu bëgg a ñëw yàq seen xew yi di tuumal it ministre de la dem taali kër Ousmane Sonko manifestation yu bari yi waaye yeewi askan mi tey ak suba témoigné nee nañu waa Benno Bokk Yaakaar ñoo ngi koy ñaawlu liñ ci gis moo di ay pexe yu gaañi teg ngir bëgg salfaañe Sénégal bés bi le jour nañu bésub tey bésub suba ak ginnaaw suba 72 la waaye yeewi askan nee nañu am ndigal di autorisation ak ñàkk ko ci la ñu yemale danañu daje tey ji ci ngoon 15 heures ca terrain akapes ba ca Parcelles Assainies gars yi Benno Bokk Yaakaar jàpp nañ li lépp te xel rek ngi Ousmane Sonko mën a am fu mu mën a jafandu ba du leen ko may ndax ñu ko ëpp maqaama moom Ousmane Sonko ci mi bi yoon soxlaa dañoo dem wuy ji ko gis nañu fi Abdoulaye Wade gis fa doom ja Karim gis fi Khalifa Ababacar Sall Idrissa Seck gis fi Cheikh Agibou Soumaré bu yàggul ku ci nekk ci ñoom bi yoon soxlaa dangaa dem wuy ji ko Ousmane Sonko mooy kan ba yoon woolu ko tax mu bëgg a jaxase mi Abdoulaye Diagne coordonnateur bu mouvement des élèves et républicains li ñu wax ci journal bi ne waaye yeewi askan wi rawatina Ousmane Sonko li tey jii di ca Parcelles Assainies l'Observateur xëy na fa dem ubbil yéenekaay bi ab reportage le journal bi def ca terrain ak APES ba ñu war a defee meeting ba ak li ko wër ñu bari ci askan wa fa yeewoo rawatina jaaykat ya fa nekk seenu fi toogatul jamono ji li ñuy ragal mooy yëf yi ëppi loxo débordement am fa l'Observateur mi ngi ñuy xamal it ne ci farandoy Macky yi mu di majorité bi am na ci ñu taxaw temm ci riposte te fas ñu ko yéene yamale ci waxi kese bokk ci ñoom Pape Malick Ndour ak jeunesse républicaine bokk ci ñoom it Lat Diop directeur général bu nee nañu ay téeméeri la dajale jox leen i moto tasaare leen ci commune ya ca département bu géejawaay ngir ñuy wër di wattu kaaraangeeg nit ñi jël na it ay jeunes jox leen ay watay pick-up ngir ñu wër géejawaay gi di protéger askan wi te it ñoo ngi doon def ay patrouille nocturne ngir di bañ ay nit yu dëkkul ci géejawaay ñëw fa di leen rax ba def fa lu jaaduwul Walf Quotidien gis ne fii fi tollu tembe lépp dajale ngirub jàmmaarloo ci diggante pouvoir bi ak opposition bi yéenekaay bi nañu bu ci yàlla fi dégg diw wàccal diw Vox Populi nañu en tout cas tension bi yéeg na ba jéggi day opposition bu taxaw ne du maye dara lañu fa gis nañu ñoo ngi dund ci réew mi situation politique bu teng tatar waa Benno Bokk Yaakaar ñoo ngi dal ci kaw waa Yewwi Askan Wi waa Yewwi Askan Wi ñu ko mëne ci jamono jooju sursoi ne nañu ci la ñu gis Macky Sall muy dund non stress dalal gayndey football yu ndaw yi ca pale ba ñoom di dóori pooc ndax dóori pooc war na ko moom Sall bu ñu xëyee gis laaj bi anki dina njëkk laaj bi moo di ndax état bi néewul doole ci dogal yi mu jël jëmoon ci wàññil askan wi njëgu dund gi journal bi mi ngi ñuy xamal ne njëg yi ci marché bi état bi wàññi ko donte commerçant yépp jëfewu ko it waaye am nañu koy jëfe fa jur jàng ji dëgg nekk yéen yéenekaay bi nee nañu moo di ci njëgu luyaas bi ak ci njëgu transport bi Sud Quotidien nañu moom kay bu doonub guerre la ñu ne état bi wéer nay ngànnaayam ak tëlem ci njëg yi mu bëgg wàññi feeñ fàng ne góomub jël la def yi mu ne nañu ko wàññi commerçant yu bari defuñu ko yenn transporteurs yi ñoom ñëw yokk ci xar karaw yokku paas bi te ñi cay gën sonn ñi cay gën dee yéenekaay bi nee nañu ñoo di askan wi askanu kees seenub maire di Babacar Diop moo nekk ci xët nañu mooy ca maire bu Kër Massar Nord maire ba fa nekk di Adama Sarr mooy tuumal maire ba fa ne woon di Moustapha Mbeng ne ba muy dem dafa yóbbaale juróomi wata yoo xam ne commune baa ko moom ca wata yi bokk na ci ñaari ambulance benn corbillard ak pick-up le maire sortant di Moustapha Mbeng libé nee nañu bi ko sandarma yi laajee fan la pick bi nekk li mu leen wax moo di pick-up bi dafa paanoon mu joxoon ko benn mécanicien bu ne woon ca kees waaye malheureusement mécanicien bi dafa feebaroon ba dem Maroc faju ji jërëjëf euh, Mamadou Mouhamed Ndiaye yéen it euh, sant nañu leen gërëm leen yéen ñoo ñu fare woon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi